ñoom dạ, dạ dañuy à, đi gi duñ ci selon ndax dañoo am nañu jom te saa yu xëyee di ci def di ci am yëg-yëg mu ñuy jural di la tuubal ñu lay tuubal ci lu ñu xam ak lu ñu xamul ak mboolem seen waa Xelcom ñun ñëpp ñu lay tuubal waaw moom xam naa ni kàddu yi duñ ko gudd ndax jotaay bi yàgg na moom Serigne Bacco dañoo yàgg wax dañu ab taalubee da ngay saxoo tub di tawasulu di sant tey ñaan di sàpp ba tax siyaar bi noonu lañ koy tënkee ñu ngi lay tumbal aw ani tamit tawasulu bi ndax sëñ Bacco moo ñu jàngal tub tawasulu ku bi ani universellement wéet ji aw ci lu ñu xam ak ñu xamul ci rëcc rëcc yi ci matali bi

jërëjëf ñu ngi lay sant jërëjëf ñu ngi lay sant ñu ngi lay sant bu wér. gën a gaawale gën a neex léegi moom yamul rek ci sol yére yu rafet mbaa di di mën a xéewul mbaa di bëri koppar waaye ci fànn yëpp la yaa ngi yokk suñu bëgg yaa ngi dëgëral suñu ngëm ndax kat sëñ Bethio. moo ñu xamal ni kat nekkati ngëm des koy defar ba muy wax naan Serigne Saliou daa tëdd ba guddi génn Serigne Saliou mu ubbi boppam bi waaw génne lu xonk jël lu mel ni sawta di yett di yett di defar di defar di defar di defar fekk nee na boobu bu ñu koy génnee mi ngi ñuul waaye da koo defar ba muy nestee si ci biir tëj mu ne ko mag li lu mu mu ne ko dama la doon defaral sa gëm ñu ngi sàkk nga defaral ñu suñu gëm maanaam ñu gën ko dëgër këj waaye day ngi sa jëmm ji ñu ngi sàkku nga defal ñu coxee la ñu bëgg la ba jeex tàkk ba tàbbi ci sëy sa jëmm ji ndax foofu nga woote sa màggalu sëy gii ñu dëgg ma la ñu dey am nañu nammeelu sëy ndax dangaa wax màggalu sëy waaye deesul jóg rek ndax màggalu sëy ngir sëy da dangay am nammeel bi waaw dox ci pas-pas bi ba tax ñu ngi sàkk nga defal ñu ko lott nañu mënuñu waaye ñu ngi sàkk sa yërmande yokku ñoo dimbali te yokku ñoo teg ci njub ni ñu koy waxee saa su ne jub tey jubal dëggu tey dëggal ñu ngi sàkkuwaat bu baax nga yokku ñoo dimbali baax moo leen seen ñi nga ma boole na moom man dama laa bëgg man du ma ne sax dootuma ko wax ndax bu ma koy wax xëy na yëg-yëg moo ma ci yóbbu waaye damaa bëgg di ko jëf damaa bëgg bokk sa jàmbaar yi nga xam saa yoo leen gisee bëgg soo leen séenee bëgg boo leen déggee sax bëgg boo leen xalaatee sax bëgg man de foofu laa bëgg a teg te ñoom ñii saa su ne si loolu laa leen soññ waaw ne woon denc sa jëmm ci bu ñu bëgg dara bu ñu xam dara bu ñu gis dara loolu sa jëmm ba tax lott nañu ndax seen gerte kat moo ma saa su ne faaw di sàkk ndimbalu sëriñ bi ndax jàmbaar amul ku ñu dimbali ñu am yokk ñoo dimbali ñu ngi koy sakkuwaat bu baax waaw ah, ñu ngi sant moom kàddu yi mënuñoo wax lu féete kaw ñu ngi sant ñu ngi yëg yëpp waaw ah, barki sëriñ nga ñu laal ak gi lépp xajut lii li duuf si nag bi li ñu koy waxee xajut cin bi ba tax dañuy tënk foofu kàddu yi tey dañoo ñëwoon siyaare si la indil la suñu tàmbali ci tabaski bi ndax kat université sa armi da koo wax léegi yëf yi yamul tey rek dañoo tàmbali tey waaye day fii ba keroog ñu naan démb la woon barki Serigne Touba waaw. Hmm. sant nañu ñun de bëgg nañu nga yóbbu ñu ci ndax tànk dama leen koy wax dama leen leen ah kër gi feesagul de tamal damaa bëgg su ma balaa maa dem na na na deux hectares yi cofeel xees kër sëriñ Sall xees mbedd yi xees ñuy dem di dem di dem di dem ba ni ñu koy waxee dootuñu taxaw fii naan diw moo indi li diw moo indi li dañ naan rek barab bi ba barab bee soxna Bato la ko indi barab bi ba barab bee amir limaa moo ko indi barab bi ba barab bee di ko def noonu ba muy séddale da ngay taxaw rek naan fee nañ ko jox baat bi fee nañ ko jox baat bi barki sëriñ Touba jaral waaw ndax lu baax lu gën fu ne yaa ko jagoo barki Serigne Béthio waxuñu ay waxi aas danga ñëw dimbali suñu waa ji kenn bu ñu naan Serigne Béthio amul denn ñoo walaay xëyuñu rek di ko wax ku amul denn ñoo da ngay def lu kenn taboo nag barki Serigne Béthio. waaw. yaa ñu ko wax yaa ne Serigne Béthio moo la jaar ci sa tur bi la xanaa xamoo ne dinañ àdduna dañ may xeeb ci ni ma la def waaw te dinañ ma ci xeeb waaw waaw jërëjëf dinañ dem ba ni nga mel man mii dañ ma ci xeeb gis nga barke si bu baax amul wute amul la ko moom mooy feeñ ci man waaw aw ma distinction

yokkal ma ngor gi ndax ngor da ci taalibe ku ko génnee ci taalibe dara des ko bàyyi sëriñ Béthio sëriñ Béthio moo ne ngor mooy reconnaissance mooy cant gi saxal ñu ci sa cant gii dañuy sax ci di la sant faw suñu dara génn la man de loolu laa gëm man may tëdd may nelaw may jóg di dox may wax may lekk man wóor ma ne fu ne yàlla ci barki Serigne Touba te rage daal naa la noonu wet bu Serigne Mbacke sant naa ci fit bii nga ci liggéey bi cuur man ragalu ma déedéet bu dee jox la bu dee jëfal la bu dee liggéeyal la defal nga ma fit bi defal nga ma bëgg te defal nga ma it kàttan ci wér naa dara def na. defal nga ma ubbi ko xel.

ak Serigne Touba yooyu yëpp muy waxuma ko ngir dama ko ci turam déedéet waaye damay sante ubbi ko bi ma defal sant naa yaa tax ma bëgg lu baax yaa tax ma xam ko yaa tax ma di ko jëfee di ko sàkku saa su ne ndax keroog day dama si dana ci woon ma sama xol bii na rafet naa yéene ñëpp lu waay naa la ko yéene ba yéene di la fa doole nu waay mel dimbali ma ba ma dem ànd ak moom moom defal ma sama xol bii noo ubbi na yaatu na mën a ànd ak ñëpp man de maa ndax lottu naa ndax saa su ne léeg-léeg ay ay ay ay xam ne lii bokkul ci ak taalu te dañoo fii nga di ñu yat lu mat a dolli dolli lu mat a xëcc xëccal te bu ñu ñeegul cuun bu ñu rusam nu ko wax mukk jokkoo bi ci biir mbooloo man de dimbali nga ma ba bis boo ma ko defal attan naa man gëm naa ni attan naa bàcc sëriñ Bari dama koy sàkku ndax damaa bëgg a def ko waaw maa ngi sant maa ngi lay sant man de <laughs> man xam naa ne maa ngi lay sant de te mboolem lu tax na ne maa ngi lay sant. sant naa barki sëriñ nga jox waaye sant na maa ngi sant sa jàmbaar yi nga ko boolee muy taw muy naaj muy guddi muy bëccëg su ma duggee ñu yóbbu barki sëriñ nga jox di sàkkul ak taal bi ndax muy lépp waaw xéewal yi saa su ne ma koy wax dama naa leen koppar jumtukaay bi ñu liggéeyal sëriñ Tuubaa waaye sëriñ bi fi mu ñu woo mooy ak defar am ak taal bi dimbali ñu ko defal ñu xam-xam bi defal ñu bëgg gi defal ñu cawarte bi defal ñu pastif bi pas-pas bi dimbale ñu ko ndax pas-pas kat dafa am solo noonu yi nga ñu koy waxee nan sori ko bari nan mun nañoo seey ci sa jiwu ji te bëgguñu ci yem ba tax ñoo ngi sant tey de la waaw moom dañuy tàmbali waaye moom xam naa ni nag xam yii waaw mag sa sa sa sa mbooloo mi ñoo ko àndee waaw ku ci nekk wane nga si sa asaka yéene ndax xam naa ni li li fii xol yi li ci nekk moo ëpp fuuf asaka gi mën naa ne moo génn te mën mën naa ne sax matagu sax asaka gi barki sëriñ Bacco ba tax ñu ngi lay tàllalaat suñu loxo yi dimbali ñu ba ñu mën di gën xam ko mën ko te di ko jëfee dimbali am cofeel ci sa jëmm ji bëgguñoo am sago yeggale ñu nag cuuñ ci ñoom waxtaan la ñu ngi koy sakku de ndax faw tàmbalee sakk ko faw bëgg ko faw sakk ko waaye it faw dox ci dimbali ñu teg ñu ci yoon ba tege leen ci yoon bi ndax wax nga ñu ko waaye nag bëgg leen caa yëg sant nañu bu baax maa ngi ñaan nga yàgg fi la woon tamit jërëjëf jërëjëf jërëjëf lépp di law ci attaan bi ñu dem ba loolu yi nga ko créé muy engagement soxna yi ñu dem ba inspiré ci loolu ñu def ëttu soxna yi di fa waxtaanee ak taalibe di fa waxtaanee ay cofeel ndax ñoom jëfi cofeel saa su ne ci loolu la ne waaw bëri na fi événement yi nga xam ne saa su ne dañ naan la soxna kat ñun ñooy def lii ñun ñooy def lii buñ ñëwee boole ànd waaw bu dimbalee tuuti bii nag dañoo ne moom. bii paa dañuy indi seen xar tabaski moom ci njiitalu université Mame Xuma waaw àndee ko yëpp waaw moom mu doon loo xam ne lu tëwteefee waaw ñëpp a tàbbi ñëpp ñëpp ñëpp a tàbbi waaw groupe bi moo leen nekk biir Xelcom te am whatsapp bi dugal nañ la fa waaw moom damaa xëy rek ah moom da ngay def da ngay def fenn fële fu bees ndax lu ci bëri code ñoo ko daal waaye bii moom dama leen ne ah tey moom ay xar waaw ca lañ ca tegu waaw doxalee ko ni ko doxalee xam naa boo ko mayee rek suñu message moom ñu sànni si benn kàddu benn kàddu laa wax waaw. jërëjëf monsieur le maire yàlla na fi yàgg lool su rafetlu yéen yàlla na a teddu te ak fi lool te wér te ñu jëriñoo sa yàgg fi waaw di santaat bu baax moom Serigne Béthio ci nii mu ñu dimbalee ak ànd gii ñu ànd ak seen bunt bii mu dimbalee ci ñu ba ànd ñu fii waaw moom ni mu ko waxee si ay kàddoom moom ma jël woon kàddu sax moom baax na ndax wax na lépp moom fu ñu teg rek moo ñu fa teg barke Serigne Touba boobaat léegi mu créé lu ñuy wax jotaayu soxna yi ba tey mu wëlbati ko tuddee ko ëttub cofeel soxna yi ñuy dox ci cofeel saa woo saa boobu ba léegi lu xew événement sax bu xewul léeg-léeg mu jékki-jékki ne ñu ah damaa bëggoon ngeen def lii ñu daal di ci sóobu waaw soxna yi ñu ko àndee waa xel koom kenn desul gannaaw waaw ñoom ñëpp koo ci woo ca saasa ak loo ko mënti woo waaw dañuy dem ba ci biir daara yi sax dañ naan waaw ñii seen cofeel yi moo leen ëppal solo waaye nii ñu ko àndee ci tabaski bi dañoo jëf ci xar yi. jëfaat ci seen daara mhm. mhm. waaw loolu moom waaw loo xam ne soxna sedd si moo ñu ko dimbalee waaw te mu doon loo xamante ne lu taw féexe la doon ba ñu fàgg ñaari gàtt yi waaw siyaaree leen ko waaw te ñaari yi war a dimbali waaw dañ fekkee waat ko tey loolu ñu ngi la koy sant barke Serigne Touba ndax amaana ci diggante bi am na ñoo xam ne fekku leen fi waaye ngeen dimbali ba ñu fekkaat bis bi ñu taxawaat fi ngi ñaari ngeen yàgg si tëwér te ñu sax faw dinañu génn waaw mu mel ni ah dañuy tàmbali ci président xar yi waaw mu mel ni xar yi kat dañuy njëkkee ci suñu suñu ndey jii nga ñu booleel ay xaram dugg si waaw mu mel ni xar bi njëkk ñëw da dugg moom mi ngi tudd Lidia. Pape Bakal waaw. jëf ak nag da si topp ah kii mooy Kaam am na léegi ñu ko tuddee mooy Kaam moo xam ne moom it ku siiw la waaw moom it tey jii daa ñëw fii ndax doo ci li ñu gën seen jëm nii. waaw sëriñ bi weesal ma. Ibrahima bokkum bokkum. ndeysaan moo la bëgg. war naa ci waay. waay dafa la. waaw gis nga jaamaatu mbokk yi waa xel ko. ñun ñu nekk rek ñëw. waaw. gerte. moom xaru VIP yi. dañoo dem ci gétt ga. maye kat. waa ji jaay mu ne ko dana ñuy jox ci VIP yi waaw mu xalku ñeenti yi ngir ko universel bokkum la yi ci des nag mu ne ah gars yi tëggatu leen waaw ndax xaw ku ne barkeelu ci waaw mbooloo mi ñun ñëpp ñoo ko àndee fii ba bitim réew waaw fàggu ñetti xar yii waaw muy say xar bopp yëpp say xar bopp la waaye yii maanaam dañoo dañoo gis

sëriñ si. ngeen wàcceel baat bi tuuti. waaye daal waay. waaw maa góor. waaw moom ko doon. Welcome to Ali. maaleykum salaam wa rahmatulah. alors ñaanal ko ñaanal ñëpp waaye ah léegi yaa ngi gën a xam ñëpp waaw barki Serigne Béthio jërëjëf Thioune. waaw waaw Amadou Baldé lii Serigne Saliou Lahoum moo ko joxe moom it di pur sang laadum mu nga jógee ca VIP ya fële bañ Serigne Serigne Saliou ban kenn xol mooy allemand boobu jébbal woon keroog Daaru Salaam waaw da nga tuddee ko Serigne Saliou waaw moom moo yónnee moom kii maa la tudd moom Mara la sa sant 2 millions la sasu matal na ko te diggante bi daa yàggu dara li sëriñ wax gën a gaaw la gën a neex léegi ni la ñu ko waxee ñi jébbalu léegi léegi nii ñooy doxee pastis boo xam ni kéemaan la waaw moo tax sant nañu bu baax waaw bi ñu ko waxee xar tabaski dafa a day yónnee xar tabaski yi yónnee ba 500 mètres ñoom la jënd xar tabaski waaw yow jëf tur. daam jaabaatu bopp ji ñebe moom da ngeen di ñu ba rek saa su ne mu ñëw. da jaabaatu bopp ji moo ko joxe. jëf tur. ñebe ñebe wax dëgg bu bare saa su ne ko tombé. waaye tàcc na ñebe waaye ñu ne ko sax. Serigne Khadim Diop bu Louga moo joxe laaj bi yaram ko boppam. waaw moom daanaka bañ bañ fa demee ñu xool laaj bi. waaye tàcc waay. daanaka moom xar bi moo gën a siiw moom. bu ñuy pour buy wax day mujj wax turu xar bi pour ñu xam ne moom mooy bor muy muy muy puissant boo xam ni saa ñu ne dañ ko bëggoon. mu ni dee da koy joxe addi waaw moom keroog dañuy wax si suuf bi ma leen di soññi naan la la maa ko taal bu ne am xar waaw ci biir soññee bi mu ne ma tuut mu ma man li nga wax dama ko yëg ba sama géniteur bi nekk fii te ma yar ko dama ko indi joxe joxe ko addi waaw mu jógee ba Louga waaw tey ci suba ci la ko indi ma ne ko waaw yóbbu rek waaw jërëjëf tuut. waaw Abdou Thiaw Canada. sa jàmbaar yi. waaw sa moo joxe bii laal moom it muy muy puissant. waaw parce que Serigne Gueye. waaw bii laal boo xam ne xale bu ndaw la. waaw mel ni moom mii daanaka ñu ngi koy woowee le le petit-fils de roi Bachir. waaw muy xam boo xam ne xam moom mii na ko xam lépp sa ndimbal la jërëjëf mën naa ko. góor. waaw. waaw barke Serigne Béthio daa gëm waaw te day jàmbaar waaw jërëjëf ci waaw bu baax bu nekk ah universel maam wi moom de loolu loolu Touba la waaw màggal 2018 dañuy toog rek di waxtaan mu tourné ne ko jëwriñ ne xam naa day waaj nekk jëwriñ ah kii nekk mu jëwriñ mu ne ko jëwriñ auprès de waaw noonu la ko waxee ak ak ak baaxaar bi ndeysaan waaw moo tax kéemaan la waaw ci xam ne lépp waaw tey moom bëgguma bëri wax ndax li may wax yaa ngi ko gën a xam waaye daal moom yokku ñu dimbali jërëjëf ci ah eh. xam ne tur at bu jot ah. ndeysaan day indi xaru tabaski yoo xam ne kenn du ko tàqale xar. Ah, waaw ah, waaw. Amadou Gueye kay dugg. tàcc waay. jàmbaar la moom itamit moom at mu jot. Hmm. moom da koy indi. waaw nee naa ko man bañ seen bés di boole man daanaka xaw ma sa tur. waaye seen bés danaa wax sama taal bi bi may indi xar rek at mu jot te te nekk kii dugg. ma ne man loolu laa jàppee woon sëñ sëñ jëf waaye keroog bi ñu boolee la ma ne Amadou Guèye la tudd waaye boobaa léegi il est resté invariable waaw bakki sëriñ lañ ko jërëjëf jëf ah jëwriñ nee na ba moom nee na de ndeysaan matal na sasum ci màggal waaye amu ci moom di ñëw na sasu matal na ko fi mu ne kii man la fi mu ne nii daa bokkoon ci équipe bi nga xam ne daa bokkoon ci jëlee xaalis ñun ñu lay ànd ak une heure du matin deux heures quatre heures ba cinq heures six heures ñuy wàcc fu ne Kaolack Louga fu ne lañ dem ngir rek utal la xar yoo xam ne ngir bu ñëwee nga bëgg barke Serigne Mbacke mu ànd ko ñun di waxtu bu nekk waaw barke Serigne Mbacke moom mii moo joxe xar bi. waaw ba ci màggal bi sax waaw tournée yi ñuy def ñu def daara zone chaque jour chaque jour. waaw noonu la ko àndee ak ñoom waaw muy jàmbaar waaw. ah. ah ñu ngi waa États-Unis. waaw moom université Diakhoumpa keroog damaa jékkee rek fekk mu jógee fii dem kër ga ñëw fekk ñu ne ma dafa yónnee ay xar ma damaa toog rek gis drapeau yi. waaw kéemaan la ma xam ni moom idéeroon la moom waaw ndekete ndeysaan daa ànd ak ñoom université Demba waaw ñoom Mourtada Seck ak seen soxna yi ndeysaan daal di koy jëfee nii ñu ko jëfee waaw ku ci nekk dañ laa defal drapeau bind la sa waaw yaa ngi leen di lire tur yi. université Demba moo joxe bii. Fallou jox na ko am na beneen bu toll nii université Demba moo ko joxee. jërëjëf universel Moutala Seck. jërëjëf universel Moutala Seck. waaw jox ko soxnaam moom it daa jox ko. waaw moom it daa joxe xaram. ah Thioune waa kuréel xasaay. ah. ñu def jël lu leen xasaay moo ko jiite ñoom ñoom ñu ngi ko sànni di wax léegi parce que fi mu ne moom dañoo nekk tuuti li nekk ci yëf yi nii rek déedéet kenn ku ci nekk daf ñuy sonn ci nu mu wuti aw xaat ñu ko sànni barke Sëriñ Tuuba looloo waral waa pour Arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, ak kuréel xasaayit soxna yi ak góor yàlla yi waaw ànd ak université Alfa yi ñoo ko yi nga xam ne moo nekk ci biir Xelcom waaw ñoom ñoo ko def ko tey waaw di ñaan nga nangul leen ko te te fulal leen ko ba buñ fiy ñëwati moom gerte lay waaw jere jeuf ciun mom day ci ki trésor la tuddu waaw di xer mo xamni momit moom it la waaw waaw ah tako tako fal ngi tako fal, waaw tako fal la jere jeuf ciun tako fal, na dem waaw tako doxal jere jeuf ciun Ah, waaw jeune jeune jeune ñoo nekk nii ay pur sang laadum la jërëjëf cun acca na dem gars yi day gaaw jërëjëf cun waaw waaw te jeune Mali koo ci gis day mel ni xar mu mag rek ndax ay te ay gone yu ndaw lañ waaw ah, waaw jërëjëf cun acca na ñëw jërëjëf ku tedd ki ah, waaw waaw kii tamit ci xar yi mag yi la daanaka moo top ci VIP yi jërëjëf waaw waaw na dem les jeunes mâles ñoo nekk nii waaw waaw gars na jeunes mâles yi ñëw gaaw aco na dem na dem

jërëjëf Thioub. ak mooy tànc waay. waa zone Nour Daara yi. moom de damaa jàpp ne xam zone bu ne ñu wax ñaata ñaata xar nga ci joxe. waaw nga ñëw nga ñëw nga gaaw aywa dañ taxaw rek soxna si gis mu jàll. waaw. xaaral ñu présenté waaw. waaw ci laal ñu la zoro Nourou Laareen yi joxe nañ ci ñeenti xar zoro wasilatu ruux ñaar lillaay rabi wala silatul boobu mooy zone Ndar lilaay rabil lazi mooy zone Kaolack ñoom am nañ ci ñaar jaari bot marahil Thiès ñoom it am nañ ci ñaar rum naa sukóor mooy sikab ah, ah. ñoom it am nañ ci ñaar yu bokkul ak individuel yi joxe ak bi ñoom it am nañ ci wakaat la mooy sa jàmbaar ji université Abdou Khadre Mboup waaw moom it na ci ñaari xar ah les jeune mâles ah, waaw. acca na dem bii bokkul ci jeune mâle yi moom kii daanaka moog VIP yee xeetoo rek waaw muy xar mu mag ci di di fi ci ci sa tur la bokk. jërëjëf Thioune kii kii tamit mi ngi jóge fële ca VIP ya waaw di moom xar mu xam ni kéemaan la jërëjëf Thioune misu xar yu mag yi misu yi mburtu yaa nekk nii waaw nooy neex mburtu yeesal gi neex a tabaskee waaw moo ko lii xar bi boo leen seen xar yi fi leen ëpp ndax moom ndawalam moo tax xar ndawal la waaw mu ne ndawalam day may lépp waaw ñun nag ay dox lañu dañuy def lu ñu romb rek gis ni lii moom bu gisee bëgg ndax man loolu laa lay wax problème ma leen moom ci ittee soxna si gis ko rek reetaan waaw barki Sëriñ Tuubaa sant nañu la waaw sant nañu bu baax jërëjëf Thioune waaw ndax ma ci mel na dox. mi ngi toll si 85 xar waaw dont les 15 gouttes waaw sant nañu bu baax te ñaan bu déwénee comme ni ma ñuy tàllal fii ba waaw jërëjëf Thioub infini waaw lii nag moom ay jëfi joxeel la yu ñu fàggu woon waaw ngir sa jëm ju teel ji waaw ndax man maa defal tawfeex waaw yàlla ma tax tur gi waaw def nga ko koy bari ñu ma defal boo demee nga xool ndax kat dama raxaw ci digg àddina waaw am yéene tabaxal la kër waaw sëñ Béthio def ko ndigal nee na ko ndigal ci cofeel égal tawasul ne ma kër googu bu noppee na ko tuddee tawasul nga yëkkati koppar yu bëri jox ma ne ma damaa bëgg nga dem Turki boo demee xoolal loo jàpp ni rek war naa dem ci kër gi yow seetlu nga fi waaw kéemaan la muy séjour bu neex bu taw feexee benn jafe-jafe aw ma waaw kéemaan la nga dimbalee ma fa defal ma fa ak kër gi ndax kat sama xol bi yéene na cee def lu ne waaye boo demee foofu laa xam ne nekk na man foofee laa waroon a def barki sëriñ Béthio moo tax sant naa la waaw sant naa la dem naa ñëw naa aw ma benn problème première classe la ma dugal barki sëriñ Béthio waaw première classe waaw ma dem dugal ma ci hôtel de luxe waaw cinq étoiles man damay xëy dox dem li jënd li may ñëw ñëwaat toog te bu may dem oto ngay yóbbu oto ngay indi aw ma ko benn jafe-jafe bokk bokkuma dugguma ci ay tram oto particulier la am barki sëriñ la jox. waaye sant waaw ndax daf maa jomb mënoon nga maa ne ah, kat ah débrouiller dem waaye yëkkati seen koppal la ma demal bi ba tax sant naa la man dimbali ma ma man damaa xam ni li la war a sant yi mënu ma koo jëf te wax kon dimbali ma ma gore sant naa la suñu. waaw ñaan nga yàgg fi loolu tamit sant naa waaw moom dañoo dem ko gis fa waaw saak saak saak yu yu yu rafet waaw yoo xam ni dañ la ko yéene waaw moom bi bi may ñëw waaw moom kéemaan la moom damaa bëggoon ay valise yi valise yi valise waaye moom yow ma damay def saa su ne rek muy ñëw di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw waaw bii juróom-ñetti saak la yoo xam ni yëpp ay saak de marque la bii doo ca gabanaara

ñu ngi koy xeeb waaw tey jii tuuti daw suñu rek waaw moom ay. ñoo la bëgg ñoo la bëgg ñun ñoo la bëgg ñoo la bëgg ñoo la bëgg ñoo la bëgg ñoo la bëgg ñoo la bëgg